du génn beneen bi nag mooy bu suñu leader bi ñuy wax suñu delloo ci gynécologue bi ko xool nee na bi mu jëwee jëkkee ñëw ni ko jàkk dafa posé wu la question ndax kii lañu ñu violé léegi mu yore téléphone am di xaaxataak di rey ñaareel ba bi mu ko seetee mu gis ni bis bi mu ko xool bis ba jiitu ak bis ba jiituwaat jegewu ci góor xanaa foofu la enquête bu waroon yam ay développement di am mën nañu wax capitaine Dièye fa mu jaar coow la am procès verbal ba ñu falsifié ko ba mu am benn rapport de la gendarmerie Ousmane Sonko dugal na ko ci dossier bi rapport yu gendarmerie wax njuuj njaaj li am ci lépp pour charger ko rek uniquement dugal ko pour tere ko bokk ci élection yi yàlla mi dara tawul waxloo ndaw si ndaw si ni Ousmane Sonko bii de waxul ak man jegewuma lépp Mamoun Diallo boo ko tëkk xanaa wax jeex na ñoom nag dañu naxante seen biir ngeen baal ma waxin bi mais ku ci nekk da nax sa morom moom daf leen nax ni xaleel la xale bu ndaw la xamul dara te lii moo ko arrivé ñu dugal ko ci yoon diggal ko ni ko di nga am passeport diplomatique di nga tukki tuumaa la talaata porte plainte àllarba ñu convoqué alxames ah téye ko garde à vue ajjuma lundi ñu def ko mandat de dépôt ñu coow ko une semaine mu jeex nga tukki dem sa yoon loolu moo doon seen pexe. yàlla dogal lii ci diggante bi wala ñu si dellu soit Sénégal dafa mel ne benn parti d'opposition moo fi am ngal la yéen journaliste bi xool leen prisonnier politique yi nekk ci biir prison bi suñu matee cinq cent quatre cent quatre-vingt-douze yi Pastef la ñu bokk xanaa Pastef kese mooy parti d'opposition bi nga xam ni ay salafiste lañu ay rebelle lañu ñooy sànni ay cocktail molotov ay lépp loolu leen rek lañ leen xëy xaar tabagul leen te si leen jëm léegi nag ñu delluwaat ci wax parce que wax ji bari na président wax na ci leer bërki démb fii amul leader boo xam ni convoqué wul na police benn benn jamono Ablaye Wade ànd ak ñam war a àndal dem ñu déglu ko mu dellusiwaat Idrissa sa ànd ak ñam war a àndal dem nu déglu ko bala cay xew xew ko moom Macky Sall bii ànd ak ñamu war a àndal jaar sens interdit dem wuy ji mais Ousmane Sonko moom bu ko ñëwal talaata altine ñu bunkeriser këram kenn du dugg kenn du génn kenn du ko seeti du seeti kenn ñu teg ko fan ñaareel ba bu xëyee ànd ak i avocat di dem dox yoonam nit ñi bëgg ko lool nag yàlla ko dal kenn mënu ci dara te moom sax mënu téye xale yi ñaata yoon la leen wax ne la xale yi may leen ma ma dem del si xale yi ni ko mukk sa tànk sunu tànk li ko waral lu yóbbu la dafa yenu leget goo xam ni avenir xale yi moo ca nekk te leget gi dafa gaaw a toj bëgguñu ku ko fakkastal bu daanu leget ga toj xale yi ni ko yenu leget gi tey dox tenkam tenkam ndànk ñun ñu protéger la ba kenn du la laal loolu indi xale yi di ko gunge suñ ko bàyyee mu dem jàmm am léegi nag woo leen ko benn yoon mu dem di wàññeeku ñu dogale ko toj otoom taxañ ko dugal ci oto kenn xamul fu ñu ko jëmale yàllaa ci wiis ndox mu sedd ndax ci lu gaaw nga dégg information ma nga këram ñëpp giif waaye toj nañu vitre oto d'une manière boo xam ni mënoon na ci jële sax lu baaxul ñu oowati ko muy dem ñu poñe ko xotti yëreem këpp ko loo xamante ni mënoon na cee ñàkk bakkanam mu dem tribunal yàlla demal ko mu ñibbi këram tëdd ci feebar une semaine lu ëpp une semaine dix jours hôpital tey ñu woowaat ko garantie bu leer lay am ni kenn du ko laal parce que bi yoon bu ñu ko jàppee bu yóbbu ko fu mu ko jëmee ak lu ñu koy def loolu fa la wax jëpp nekk ñu wax nag ni ñun mag ñi ginnaaw li nga xam ni yëg nañ ko te mën nañ ko tuddee sax kersa suñu diggante ak xale yi barki dem bi ma demee Casamance wax naa ko xale yi nee naa ko chance bi ngeen am mooy réseaux sociaux yi chance bi ngeen am mooy teel a yeewu chance bi ngeen am Ousmane teel a wax ak yéen teel a taal seeti xel ngeen teel a yeewu teel a xam lu ngeen bëgg su ko Mamadou Dia defoon ak ñun ba nekkee xaleel fii Sénégal ak si tey dina ko raw waaye ñun amul woon chance boobu léegi nag ay nit toog seen kër naan leen ñi leen di woo leen génn leen di leen sacrifier ak di leen tayle bu leen ko nangu kaleen bàyyi jàmbur la moom tam ñamuy woo seen seen avenir moo nekk en jeu te ka leen di te ma ca xam man te tax bu tax ma may wax muy Ousmane Sonko wallahi yàlla teral na ko su ko neexoon toog këram croiser les les bras teraanga bu yàlla joxe ci àdduna jox na ko def na ko jullit jàng na macha allah am na xam-xam mun na gañe lu ne ci àdduna dund dundal njabootam ba bëgg yàlla di yóbbu waaye bëgg Sénégal bëgg njariñu Sénégal bëgg avenir tax mu woo xale yi bu leen kenn gën gore génn leen ngeen def seen droit à la résistance jàppale ko ngeen aar ko ndax mu aar leget gi mu yenu te yëpp seen avenir ñun mag ñi nag war a mën def dara ginnaaw doomu daara yi leen di wax ginnaaw insteurs yi leen wax ginnaaw ñeneen ñun mag ñi waxoon na leen ñi nga xam ni kattan mayetu leen ko ñu ngi yor seen course di leen ñaanal lu nu mën ñi dese kattan fu ngeen turne di ngeen gis seen kanam seen gannaaw seen ndeyjoor seen càmmooñ jàmm kese kese la ju bëgg mais jàmm ñaar a koy dox boo jëlee li nga moom yépp da nga jox nit ki li mu moom yépp fekk nga fi constitution bu ni ñaari mandat ngay am

nan ci tey te nanuy seet lu ñuy def président barki démb wax na ni dossier avec lui le dossier est totalement vide bu amee lu tuuti lu ci ab lu ñu war a projeté wala lu ñu war a déglu la défense moo ko fa indi ils n'ont rien à donc il est encore temps pour reculer Sénégal nekk ci jàmm ñu dem aux élections ku ci war a bokk bokk ci ku te war a wacc ku ci war bokk bañ cee bokk incha allah ñun li ci sunu wàll ñu ànd ak sunu candidat le président Ousmane Sonko.